xamb gi ngeen jàkkaar lool mu fees dell ak ndox ab tuyau bu toj la woon mu ngi nekkee ci Touba digganteem ak grande mosquée bi muy jumaa ji daanaka matul 200 mètres ci wetu kër Serigne Mamour ki xam sa diine ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Maawu Rahmati ñoo ko doon liggéey waaye mu mel ni saafara la gu jur jàngoro loolee la askan wi nga xam ne ñoo dëkk ci quartier bi lee tooy bi dafa am problème ñu daal di koy woo wax ko ko biñ ko wax wax leen ko ñoom ñu négliger ko. ñu négligé ko ay ment fois ba kër gi jekk-jekk daal di màbb daanu bi kër gi màbbee daanu nag ci ci la xale góori koñ bi génnee am a jaaxle toroñ tamit ñoom it daal di taxa def seen bi def seen vidéo ñu publier ko ñoom ci lañ gis vidéo boobu ñu publier léegi bi loolu amee ñoom amuñu ci benn réaction buñ ci def ñun ñooy def chaque jour ñu xëy bu tawee ñu génn ngat ci kii ngat ci ngat ci affaire bi ñoom bi ñu ñëwee ñoom ñoo indi seen benn biir fii ñoom pax mi ni mu mel ñoom ñoo ko yokk bi ñu ko yokk ñu ci defaat benn xam-xam lu bàyyi ko nii ñoom solution boobu lañ bàyyi ko nii neen naan ñu dinaa ko defar dinaa ko defar nii mu ko waxee noonu la amee mooy tiwo bi euh, waa maaw raxmati ñoo ko doon defar tiwo font la tiwo bi nag bi mu tojee indi na ay jafe-jafe ak ay gàllankoor li mu ko waxee mooy Touba la ndax Touba lu am ñu ne sëriñ bi la waaye am na yenn dégâts yoo xam bu amee sax mën nga topp nit ki mu fay la yàlla dogal ñu déplacé waat tiwo bi ñëwaat gasaat mais fi ñu gas liñ doon gas di bësoon tiwo bi moo mujj commencé waat daanu ba ndox mi ne ñëwaat fi démb ku ne xam ne ni ñu ngi jub màggalu Touba fii moom ku ne xam ne dañ ko war a éliminer dindi ko mu dañ ñu defar ko bi ñu des fi ñu ko busane mooy ñu nekkoon ci secteur bi yëpp ñu am ndox noonu la mel ba kër sëñ Maamoor xam sa diine noonu la mel ba Sura noonu la mel ba Ndaamante partout noonu la mel waaye lii du lu mën a xaar waaye nag ñun liñ ci war mooy fii ma taxaw di wax ak yéen jokko na ak kilifa yi ñaar mooy sëñ Mountakha yëg na ko ndax jottali nañ ko ñu ko war a jottali loolu sous préfet yëg na ko ba am na matuwaay yu ne mi ngi koy jël ñi ngi toog di ko xaar muy ay suuf yu ñu war a andi waaye responsabilité bi maaw raxmati la maaw raxmati mooy responsable donte maa nag ndax tool nañ foo xam ni amatul responsable mairie responsable maaw raxmati ak yeneen structure yi. mbir mi nag métti na lool waa koñ bi ndax seeni robinet amatul ndox muru kër gi daal di ci daanu fu ne wut nañu fa wallu waaye dara nawet bi ñëw mbir mi gën a jéggeeti dayoo. am nañ fi ay jafe-jafe yoo xamante ni jooytu nañ ko jooytoo jooytu ba sonn trouvé nañ solution ba sonn lii ci gox bi yëpp amul kenn koo xamante ne si ne trois mois yi am nga ndox wala dara këru jàmbur gaa ngi nii kër gi daanu na ñoom woo nañ leen ci woo nañ leen ci côté bu ne heure bu leen wooyee ki nga xamante ni si ne sax moom moo yore maaw raxmati demoon na ba ñuy def ay menaces dinañ wax ni ñoom bu ñu waxatee defate ay vidéo lu mel noonu danañu porte plainte ñëpp ci war a jàpp moo tax ndaw yi ñoom ñëw jàpp ci bi ñu xëyee itam am nañ lu leen naqari parce que amuñu ndox seeni miir a ngi bëgg a daanu fu nekk taxawu ne leen ba mu des ñu ñëw seet su seet si leen loolu mooy problème ni ñu ko doon waxee moo tax nag ñu xëy baare tali bi mais ci seen biir xam-xam ak waxtaan wi ñu def ñoom xam nañ ni ni dëkk bi kenn du fajal seen bopp mais bu doon beneen dëkk ñu fajal seen bopp loolu tax bi ñu waxtaan ak ñoom ñu nangul na ko ba pare nag nekk doomi dëkk bi ndax ku tudd maam moon maam moon jànnam Diop da nga tudd soxna Lo Diop da nga tudd Cheikh Mamadou Moustapha kon ci biir dëkk bi la digganteem ak fii même pas 100 mètres jumaa ji ñuy waajal màggal gi moo tax ñu ñëw taxaw fi ñu ngi xaar kilifa yi fii du ñu fi jógee ngir ñu saafara leen seen mbir mi loolu mooy li nga xam ne moo am noonu tam la maire Touba fépp ni mu ko waxee mooy ñi ngi ñaan sëñ Mountakha moom ku ne da koy remercier da koy sant ndax ku ne xam ne ni yàlla rus na ko mooy ñaan gi nga xam ne ñaan na ko yàlla wàcce lépp waaye ci biir loolu nag dafa am ñoo xam dañ leen dénk askan wi ñu war a nemmeeku askan wi. ndaw yi nga xam ne nag ñoo nekk ci quartier bi rafetlu wuñ pataaral gi nga xam ne moom la ci yenn kilifa yi nga xam ne waroon na leen ñu defar ko wane ci mbir mi le ndax nee ñu bu doon buntu kër kilifa la ba léegi defar nañ ko bu yàgg. lii buntu kër kilifa diine bu mu doonoon defar na gis nga waa Touba léeg-léeg da ngay dégg xale wax ñu naan kii amul ak taalibe amul ko ñun Sëñ Touba rek lañ gëm Sëriñ Touba rek lañ yaakaar Sëñ Touba lépp loo xam si ala yom la ko ñun soxlawuñu dafa am kilifa yoo xam ne dañoo nekk fii ci dëkk bi waaye dañoo seetaan ndaw dëkk bi nañu ko wax nag waaw sëñ Mountakha kooku moom grâce am moom kooku dañu koy ñaanal yàlla guddal aw fanam wéral ay cëram moom kay xanaa moom desewut pëndi bi rek pëndi bu wuri de ñi ci ginnaawam nag ñoo ko war a jàppale sëñ Mountakha mun mënut mun joti fépp dañ ko mën a jàppale ci la ci nekk ñi nga xamante sàng si nga xam si ne ñoo fi nekk nag fii nii ci dëkk bi ñoom ñoo ko war a jàppale ci dëkk bi nii waaye defuñu ko de seen bopp leen ñor ak seen i poos képp moo leen ñor ñun waa jeunesse bu Tuubaa ñun ñoo ko wax te duñ ci kilomètre kuréel gi nga xam ne moom moo di Xuddaamul Xadim dox nañu ci ay jéego ngir xool yan yoon la ñuy jaar ba kàmb gi ñu mën koy defar ci defar bu gaaw waaye ndox mi mën a dellu si ci askan wi ndax màggal gi ñëw na ba noppi ku ci nekk xam na ne ñi dénk affaire sociale autorité yëpp war nañ ñëw xool askan li ñu dund am na ñoo xam seen i ceeb yàqu na am na ñoo xam seen i lal yàqu na am na ñoo xam ne ci biir courant bi ñu nekk yàqu na am na ñoo xam seen i matelas yàqu na ñoo xam ñëpp man xam naa ñëpp dem naa ci ku ci ne ñu dem ci loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk moo am fii ñi ngi ñaan daal ñu ñëw dimbali askani fii ndax sonn nañu nit nag bu sonnee fu mu mën a jaar day day day day dana dem ba duutu mën a maîtriser boppam mais lii nag moom dafa yàgg ni mu ko waxee ne dafa mel ne ñenn ci kilifa yi dañuy xaar ba musiba am ñu doog am li ñuy wax prévention maanaam da war a euh, taxawu mbir balaa jëyee di am ndax fii bu fi xale tàbbi woon rek mën naa faatu loolu yëpp boo bi ci des mesure de sécurité yi ñu ko war a jël muy pax mi ñu ko ci yooyu yëpp war nañ ko ci def ñi ngi leen di xaar nag du ñu mën a condamné gun kenn mais ñi ngi leen di xaar ba xam danañ ko def wala déet waaye responsabilité yi ñëpp la ñeel ndax sëñ moom li mu bëgg mooy sëñ Muntaxa ku ne xam ne ni yërmaane askani ak taalibe doon ko fi bàyyi ñi ko ci sant barki dem maa ngi koy wax ci tabaski bi tabaski bii ñu àgg sëñ toogal boppam ñëpp toog mu ne képp kuy joxe na dem jox sëñ Cheikh Lappé waaye képp kuy laaj na ñëw ma jox te sëñ bi tam am na loo xam ne du yëg information sëñ bi am na loo ne yëgu ko moo tax ñu nit ñu taxaw porté loo xam ni lépp loo xam ni lu sëñ mun Muntaxa war a yëgati la mu dem directement ci moom jaar fi mu war a jaar ba mu yëg ko parce que am na yoo xam ni bu bëggee dem gars yi dañ koy naj mu bañ a sëñ bi mais danañ am possibilité lépp lu sëñ Muntaxa war a yëg danañ fexe ba sëñ bi yëg loolu mooy li nga xam ne moo am tey ñi ngi taxaw di di di déglu ñi nga xam ne am na ku woote léegi ni ñi ngi indi suuf am na ku woote ni ñi ngi war a dindi voix bi ñi ngi leen di xaar mais ku yàlla bind nag bu sa bopp jëmee kaw say tànk jëm suuf boo waxee loo xam ne nekkul dañ ne taxaw weddi ko soo waxee loo defute dañ naan la defoo ko ñi ngi leen di xaar ba xam danañ ko def wala duñ ko def. defar kàmb gi nag lu jàmp la ndax lu mu gën a taw yàqu-yàqu bi gën a yokk pax mi gën a yaatu te ñàkk kaaraange dëgg la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fiy jaar rawatina gone yi.